amul ku lay werante te ka ŋaayoo ci Mustafa tëddal nañ nelaw yaa Mustafa ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiirooti luum nañ ci Mustafa tëddal nañ nelaw yaa Mustafa ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiirooti luum nañ ci Mustafa wala yaara yu may yaay borom xaas ni mustawa muhammadu abdalahi ax nii bi ña daa xiiru ak mat seen gëñ ya foq nañ sa bawkat seen gémmiñ yi saañ nañ ko mustawa ña daa jabar ña daa xaatima ña daa luxus yalax nañu seen xam-xam ya far toppi mustawa sigil te weytoo madru yi nan ci yow bu wér te bul faale ka wuy see ka far jekki mustawa su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw na yaawat ña daawoote ña ñi ngay woo nee nañu waaw waaw nda Seex Bamba yaay donoom ku koy sikki sa kaareere Seex Amdi Mustafa ci waaw mbaa ci waaw waaw mbaa ci woow woow nga tollu tey ku ñëw ku jëkki jooy bokki taalib yi asalaamaaleykum wa taala wa barakaatuhu noo jot noo jot lu kàddu yu moom Cheikh Modou Aminta Fall nee na mi ngi jottali kàddu yu bàyyi ko ci jëwriñ yi nga xam ni moo nu fi yabal di jëwriñ ñi Cheikh Ibra Fall ja muy Serigne seex Jëmb Fall mu doon kàddu yi cant ak kàddu yu ngërëm nee na ak kàddu siyaare nee ñu jëmee ko ci jëwriñ ji nga xam ni mooy jëwriñ ñi Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke ja Cheikh Ahmadul Mokhtar Cheikh Moustapha nee na kaddu jàmbur lay jottali muy kilifaam gi toog di Serigne Fallilou ànd ak waajuram yu nga xam ni ñooy jëmmi kan bàyyi koo muy jëwriñu Cheikh Ibra Fall joojee di sëriñ Cheikh Jëmb nee sëñ bi limoon na seeni tur léegi nooy ay bëtam di ay tànkam di aw làmmañam noo di léppam nga xam ni lu sotti rek ñoom la nee na kàddu yi nag di kàddu yoo xam ni kenn ci ñu baax ñi day wax ni nee booy séddale cër yoo xam ni du benn cër du ñaari cër te mbooloo bokk ko dangay ngay seet cër ba nga xam ni dañ na mbooloo mépp nga séddale ko nee na bu ñëpp dajee rek buñ séenee ngay joxe yee des benn ka amoon moom day yaakaar ni da ngay dollee waaye amoon na ba noppi nee na kon day mel ni yoon wii moom yoonu sëriñ Touba wii loo ciy séddale jëkk ci Cheikh Ibra Fall wala nga tudde ko Cheikh Ibra Fall nee na dajal nga murit yépp koo xam ni la nga wax sa digg ak Serigne dëgg la bokk nga ci loolu neena loolu lu wér a wér la kon Cheikh Ahmadul Mokhtar jëwriñu Cheikh momadou mustapha Mbacké ji ci turu sun kilifa gi nga xamni ay wajuram ñoko jox seen kàddu ngir doyloo ko mu teg ko ci sunuy loxo neena mi ngi jotale ay tiant ak ngeeram muy lo xamni ni melni dañ na mourid yeb kaddu yi ñuy wax limi woyof woyof sa yaakaar ne ci Serigne Touba ku nekk boo ko nangoo boole nan la ci ndax bis bii nga xam ni moom la ñuy waajal bis bu ñëpp bokk la day am lu kenn di moom am lu ñaar di moom am lu ñett di moom am loo xam ni mbooloo koy moom sax waaye day am loo xam ni ñëpp ko moom mooy bis bi ñuy waajale bis bii kon buñ ko tuddee Cheikh Ibra Fall lu aji ci yoon wi lu mu doon tabbi ngi ci biir loolee ñoom dajal nañ yoon wi rek ñoom nee na bisu Cheikh Mouhamadou Moustapha itam ku Serigne Touba doy loo ku ne ku doy ku ne doy na la kon sëñ Modou Moustapha doy na ñëpp nee luñ ko séddee lu ne mbalem barki démb muy setal barab mu yebal Cheikh Ahmadou Mbacké muy sëñ muy sëñ Aliou moom sëñ Aliou nee na ba mu ñëwee mu joxe kàddu yu sëkk yoo xam ni dajal na yoon wi ci ay cant ak ngërëm bàyyi ko ci jëwriñu kër gii toog jëwriñ ci tedd ji toog Cheikh Mouhamadou Mokhtar nee na kàddu yu mat nag day mel ni bis boobee day ab tàmbali waaye tàmbali bu egg cant yooyee jëwriñ fi teewoon rawatina jëwriñ ji teew nag tey jii tan jiitaloon ko muy sëriñ Cheikh Fall moom Cheikh Modou Moustapha muy sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng ànd rakkam yu tedd yii ne ban ñëwee itam kaddu ya nga joxe won bu doon aw ñam la dañuy wax ni red reg na murid yeb kon ñoo ngi ñaan suñu borom mu guddal so fan jëwriñu cheikh Mamadou Moustapha ji jëwriñu cheikh Ibra fall ji neena ci lamagnu rakam yu teddi yi ñu teg ko ci seen doom ji di ab nee na xolam sedd na guy ci cër bii ñu tuddee Cheikh Ibra Fall waaye kàddoom matale na yëpp ndax mel na ni bu waxee loolu tabal na yoon wépp mel na ni mel na noo xam ni mel na ni mën na noo wax ni ay cantam tabbal na ci képp koo xam ne sa yaakaar ci Serigne Touba la nekk ndax li mu def ki def li mu def ñëpp la ko defal waaye moom mi ngi koy defal itam bi mu ko ko defalee dajal na ñëpp kon ñoo ngi ñaan suñu borom mu yàggal sa dund ca wéral la yaa njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha gépp ak murid yi nga xam ni danoo jaayante te dara doonatul seen ak bëgg lu dul nekk fi ba liggéeyal Serigne Touba liggéeyal Cheikh Ibra googu ñaan yàlla ko seen borom nangu kaddu yi dafa mëntu ñàkk waaye la Serigne bi wax lu woon ca baas boobee la ngay sori sori dara umpu ci te yow lañ ko doon waxal kon bu nu waxaatee mel ni ka waxoon waxul wul loolee waaye kaddu yooyu moo yii rek. kon sëriñ baa lay sant tay ñaan nak mourid yi nga xamni bat la bo xamni ne buñ ko waxee ñëpp tàbbi nañ ci biir ko xamni sa yitte moy defal sëriñ bi ak bëggam tàbbi nga ci biir ñaan gi ne lay sey bëgg ak noko bëgge ak foko bëgge ak loko bëgge yalla suñu borom amal lola ci daraje Serigne Touba ak Cheikh Ibra Fall daraje saba Modou Moustapha daraje jëruñam di toog ak ñim ko bokkal ñépp jërëjëf Mbacke. nee na di sant it cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul ab. ndax lii ngeen def bettunu waaw ndax kenn ku ne na nga toll rek ngay jëfe te jëfin wi mat na sëkk mat git lu fi yag la señ bi waxon na ne nun njabot gi dafa bëgg ñu xeeñtu sëriñ bi jàngale si ak jub ci gone yi waye fatali mag ñi ku jog te nara jaar si aw yoon suñu mam Cheikh ibrahim Fall dafa bok ci ñi ci njëkk ñu ni nañ ko barkelo ndax ngeerumul Serigne Touba baba adina tukki murid bu ne mom ngay sakku te mom Serigne bi da ko gërëm ay yoon ñepp xam ko. ñu bëgg a barkeelu ci ngërëm lool yi moo tax suñ xel daj ko ne sax lii nu ko tuddee bis biñ koy waajale toll na ni toll waaye nag suñu jëf ci yéene ji ñu am si moom. xaajut bay mat fu ngeen ko tak rek yene ji wessu nako ndax dañu xamne kep ku serigne touba ñor amel na njukkal maam Cheikh Ibrahima Fall kep ku serigne touba ñor nga xam ko ak nga bañ ko xam yang koy roy te njariñ do nga nu tax képp ko xam da lay dimbali ci ni nga mëna am njariñ nga yëg ko ak nga bañ ko xam xamal ni so goré amel nga ko njukkal té ñun nak ay gor lañ fasiyéné doon di ay julit di ay muriti serigne Touba bu loolu jallé xam nañ bu baax ginnaw serigne bi taxawaayu maam Cheikh Fall si yoon wi te loolu moom ñépp la ko defal te am na noo xam ne bu ñu taxawe woon xaj na kon yëf yi fii mu àgg tey du fi àgg waaye ginnaaw taxaw na nam war a taxawee yépp ci jëf ak wone joxoñ kenn amatul fitu def leneen loolu bokk na si li yéwénal lu bëree bëri loolu yàlla def Cheikh Mamadou Moustapha mi mu ko seqaloon amuñu lu dul moom loolu di ab cër ñu war koo dundal kon sëriñ bi dafa wax ni lii mënu def loo moom xam na luy njariñam waaye nun la bëgguñu jariñu ak ñi ñëwagul teet fa suñu yéenet mu yem fi ñi ngi sant ñëpp di ñaan ngeen jottali cant gi kilifa ga xamal ko njaboot gépp ci ginnaaw sëriñ Ahmadou Mokhtar ñu ngi koy sant di sant njaboot maam Cheikh Ibra gépp di sant Baye Fall yëpp waaye di sant murit yëpp ngir lii xam nañ ni sax jomb nu waaye nag nangu gii ñu ko nangu te tegunu si baat daf na woon ni Baay Faal nga fam ne woon loolu rek la ah li si am nag mooy sunu bokk yi nga xam ne bokki Baay Faal yi te nekk si kër gi te ñu seeni bokk ngeen bokk lépp bokk liggéey bi war nañoo seere ay cant demale si yéen jëmale si ñoom di leen ko seeral yéen kilifa yi ngeen xam ne ñoom it nekkal nañ leen fi nañ leen fi war a nekkee ne ab Baay Faal war a nekkee ne kilifaam te dara manqué wul kon ñu ngi leen di ñaanal bu baax ngërëm la Cheikh Ibrahima amoon ci Serigne Touba te dara mënatu koo yàq. yàlla nañ ci am yéene ju kawe suñu njort ñaan gii ñaanal suñu kilifa gii ñi ngi leen di ñaan ngeen yokk ko ndax ñaan du doy bu ñu sañoon de mu yàggaat fi lool te ànd ko wér ndax liggéeykati sëriñ bi lañ te yéen bu ngeen ñaqee lu ngeen ñaan yàlla mu def ko kon seen ñaan soxla nañ bëgg nañ mu yàgg fi bëgg nañ mu am wér aku tal bëgg nañ ñi fi nekk ñëpp it am ngërëmul Cheikh Moustapha loolu rek moo doon wax ji dañ koo tële lool nag te sëriñ bi teg ñu ko mu xaw noo bett waaye na xam ne njaboot gépp benn la te it ñun amuñu luur sëriñ Touba amuñu luur ñoon sëriñ Touba ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. waaw sëriñ bi kay dara juumu si waaw. Serigne Fall gi ak mur yëpp. Mhm. Serigne Fallu nee na njabootug Cheikh Ibrahima Fall gi ak mur yëpp. ñu ngi dogu si Serigne Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall. Cheikh Ahmadou Mbacké Cheikh Ahmadou Mokhtar Mbacké yàgg fi lool te ànd ko wér. ba lim na la la liggéeyal waajuram ba. lim naa la liggéeyal waajuram ba. liggéeyal ko maamam ja. yàlla na ko sa borom man loo. tem andak ànd Cheikh Modou Moussa mbake gep te dimbali murid itam nak ban jekku sen i ndigal rek bañ jekku seen i ndigal rek te yàgg koo jëfe lool madru yi nan ci yow bu wer te bul faale ko wuy ka far jekki su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate mustafa